toll nii jeune boo xar xol bi tukki moo ci génn réew mi bu doon réew mu normal réew mu baax réew moo xam ne am nañ ci yaakaar ëllëg kenn du kenn du jël gaal kenn du dem micro-gaz kenn du liggéey loolu mooy dëgg loolu mooy moo fi am mais nga jéem a xool di kër bi kër bi ci dëkk bi loolu mooy liggéey bi ah loolu liggéey la man démb bi may seetaan man démb man fi duggee di seetaan bu ko seetaan ay fecckat ak ay waykat de xam nga ñan laay seetaan mooy ñi nga xamante ne si ay usine lañ yor di liggéey ay pôle di créer ay ay ay semine di créer ay jaasi di créer ay cin di créer di créer di créer li mu mën a li mu ñii nii yow yaa ma gën a yaa ngi ci internet bi xam nga li ma man ci ñooñu laay a ñooñu laay seetaan chaque jour mais damay ruus ci Sénégal. est-ce def nañ lépp man mii di wax ak yow soxna si jàng naa métier métier bi doxul ma dem jaayi kafe Touba jaayi ndékki Pikine doxul. ma mujjee lan laa mujjee di wër di ambila di jaay ay galette kër kër ci dina ñëw su yàggee yàlla baax na waaw yàlla baax na dernier mot sénégalais la soxna si baal maag yàlla baax na année 60 ba léegi ñooy naa yàlla baax na yàlla du musa du musa bon yàlla baax na yàlla baax na mais nit ñi ngeen def ñun ñun ñi nga xam ne ay doomu aadama la nekkuñu si àll bi nekk ay bàyyi ma nekkuñu ay leneen ak leneen nekkuñu ay rab nekkuñu ay leneen ay doomu aadama lañ nekk ci dëkk bi dëkk bi am ay ressources naturelles yu bare bare bare comprendre lépp ngi sur quoi or baa ngi ñu ne pétrole baa ngi fële leneen ak leneen ngi fële tey jeunes yëpp dañoo war a gis seen bopp si réew mi ndaw ñëpp dañoo war a gis seen bopp si réew mi ba kenn du génn réew mi di dem di seeti ñu am yaakaar ci kenn nit koo xamante ne si am nañ yaakaar ci moom dañoo am yaakaar ci moom. muy kan. muy Ousmane Sonko bu sell mi. waa kay gis nañ ne kii di Sonko àtte nañ ko ba juge bi daal di teggi radiation bi waaye kii di Maître El Hadji Diouf daal di nañ wax ne ah, jeexagul dañ ko yóbbu cour suprême. soxna si boo bëggee suñu waxtaan neex da nga may bàyyil théâtre kat yooyu Liberté El Hadj Diouf nee ko théâtre li ci nekkoon Sanekh lekk na ko théâtre amatul xaalis moom day comédie moom comédien la ko nit ñi jàppee. kan maître maître El Hadj Diouf moom. nga teg ne dafay comédie. waaye day comédie rek kooku ay wax yi capp cappali bant def noonu di signaler gauche di jaar droite kooku du 100 francs kooku nawloo wuñ ko ñun ñi ñun jeunesse bi nawloo wuñ ko kooku na nekk ci jàmm kooku nawloo wuñ ko ñun jeunesse bi. ñun ñoo ngi ci yeneen détails ay maître El Hadj Diouf yooyu noonu man bëgguma exemplaire du exemplaire kooku ban exemplaire la kooku du exemplaire. kooku kooku kooku théâtre kat la comédien la can dama bëgg nga jot jottali ko vidéo bi nga ne ko théâtre li ci nekkoon Sanekh lekk na ko moom na dem séegi fi ay filmam joué ay filmam di kër kër yi def ay détails yi muy def nii yi muy def noonu amul sens nit ñi lijjanti wuñ ko nawloo wuñ ko da ngay xam nit da ngay wax droit wala nga wax lu nit ñi mën a dégg wala nga nit ñun ñi jàng man dongab daara laa jànguma français mënuma bind sax sama tur ci français xam naa lu yenu maana ak yen wu maana lu yenu maana ak lu yenuwul maana liir bii door a judd sax xam nga ko mais maire El Hadj Diouf ba mu dalee wax ba léegi mun mënu ma laa wax benn wax boo xamante ne wax na ko ñu ne ah maire tey wax na dëgg maire tey li mu wax de normal na ba xamee ba léegi man man ba ma juddoo ba léegi di suivre maire El Hadj Diouf lee ma làq maa ngi ci 35 ans 40 ans maa ngi rompore 40 ba léegi mosuma déglu maire El Hadj benn vidéo am ñu ne maire El Hadj Diouf tey wax normal na ah d' accord nañ tey ci li mu wax li mu wax man mosuma dégg man ay waxi nax sa xandak rek lay wax état bi jël ko teg ko ci wetam muy kërti kërti di wax ay waxu dofam di tel teeli xaw moo day bopp bi day per man ma à jour man dama yaakaar ni bopp bi bopp bi dañ ko war a mise à jour mais fii du réew soxna si loolu laa gëm Ousmane Sonko dafa war a bokk force pourquoi du bokk Ousmane Sonko guinéen la wala malien la wala congolais la wala ivoirien la juddoo ci réew mi màggi ci réew mi jàngi ci réew mi zéro lu bari ci réew mi xam ni réew mi doxee mu ne eh yéen ñi nga xamante ne si jàngu leen français kat bindu leen bind seen tur xamu leen dara si réew ñu leen di nax rek daan nax seen baay di ñëw ca àll ba man kaw kaw laa dëkkuma fi. daan ñëw ci àll ba bu élection ñëwee ñu tuur leen a xaalis na wayloo leen def loo leen lu leen neex falu di gunnaandaat ndakaaru frigo ba kilimi sedd igi yuy jóg mu ni loolu noonu laa fi bëgg a jëlee eh, bu ma nekkee président lii ak lii ak teg mu teg lu leer nañ loo xam ne nit ñi dañ koo mën a nit ñi yaakaar nañ ni ah bu ñëwee dina ko def xam nga ku ñëwagul moom xamaguñ lu muy def. mais sànq yaa ngi naan dañoo am yaakaar ci moom. dañoo am yaakaar ci moom. dañoo am yaakaar ci moom. li nga wax nii mooy yaakaar ci moom. loolu yaakaar ji parce que dafa wax loo xam ne dañoo convaincre ñun jeunesse bi moo tax ñu topp ko. mais kii di président Macky Sall la waxoon. non président Macky Sall laata mu doon toog lan la fi nekkoon nekk fi woon ministre. mais wax yoo xam ne da ngeen ko gëmoon yéen a ko faloon en fait. ñun ñoo ko faloon. Hmm. mais nag ba mu waxee loo xamante yow tey bu bu bu ma ñëwee ngoro la takk la ñu dem dem ba ci biir li ma wanoon bi ma lay ngoro sérieux gi nga ma wanoon ak simplicité bi nga ma wanoon ak nite gi nga ma wanoon ak bëgg maa seeyal ci yàlla tax gi nga ma wanoon dem ba ci biir doxalatoo ko du ma du ma seeti keneen. ah mais mun nga waxtaan ak moom bañ a seeti keneen. adduna noonu lay doxee boo waxtaanee ak moom mu dëgër a waxtaan ak moom njur daa toj bopp bi kii semiñ tojul bopp bi laa lay wax de yow soxna bu ma dugal xam nga ni kii njur tojul bopp bi kat kii xam nga ni Macky Sall mii xam nga ni kenn mënu koo convaincre ci ay wax ak yii nii ba mu toogeeg léegi ñaata at la yow laa koy laaj yow journaliste la. yàgg na wax ma ñaata at la. yàgg wax ma ñaata at la ans fukki at ak ñaar mm. boobaag léegi nga ni nga ni nga ni nga ni nga ni waxtaan ak moom nga ni dañ koy laayante biir moom ndax mu ndax mu doxal. mais ci ki ngeen su ngeen toogee mu def comme ni Macky def nag. ñu seeti keneen rek ba keroog ñu am lu normal parce que réew mi lépp a ngi fi ñu seeti leneen ba keroog ñu am ko normal parce que réew mi lépp a ngi fi. réew mi lépp ngi fi lépp war a dox fii fii dara warul taxaw ndax lépp a ngi fi ñun waru ñee tubaab bi sax bay dem dëkkam ci yoon bu réew bu doon réew mu njiit yu baax am bu doon njiit normal la am réew mi lépp ngi fi lépp ngi ci réew mi mais tamit ñëpp est-ce que ñëpp mën am liggéey. déggoo li ma la wax soxna si yàlla suñ borom sax baaraam yi tollalewu leen loolu man maa lu gën a xam comprendre nga ñëpp mënuñoo wat mat walaat litre ñëpp mënuñoo mat litre walaat mën ta ñàkk mais nag walaat tamit na niin comme diw ni mi nii ne rek lépp na nekk diw xaw ma dégg nga moom dégg nag man nag dama xaw a dégg olof. <laughs> dégg ma olof. voilà dama ne la xam nga walaat ak litre lépp diw la. mais lépp lépp na nekk lépp na nekk diw lépp na nekk diw rek lépp na niin li may tëjal li may tëjal leer kese la Ousmane Sonko nañ ko bàyyi mu bokk ci élection yi ñu fal ko président mu jiita jiite réew mi doxal bu fekkee deful lu doy nit ñi ñu supprimer ko seet keneen ba kero ba kero ñuy ñuy mën a am normal. loolu mooy dëgg mais di cap capale bant naa noo kas xaw ma noo ko waxee man jàngu ma nag noo ko waxee léegi ñu ne xaw ma dindi nan xaw ma lan dindi nan lii waaye bu ñu demee ba ci biir. xooli lañ dégg muy wax loolu. xooli naan gerte bi waaye avant avant ñu koy sa sàqami il faut ñu saaf ko. il ñu saaf ko. Uh-huh. gerte kay boo xoolee kay bu la neexee yéy noonu bu la neexee saaf luy loolu. des na la ñu wax lan mooy loolu luy des. luy loolu laa bëgg xam lan. maître moo ko wax de. waaye ñi nañ may nit ñi jàmm nañ arrêté seen caaxaan yi ñuy def ci caaxaan rek lañ ñàkk nga naan ay mètre bàyyi ma waxu mètre yow nga naan ay mètre mètre ak Moussa laa ci amalee nga naan ay mètre wasalaam. Ousmane Sonko dina bokk moom loolu loolu état bi di wax Ousmane Sonko du bokk parce que amuñ fu ñu ko teg te ñoom ñëpp ñu naan bokk bu leen teg duñ la indil article duñ la moo wax lii rek lañ lay lii moo wax laa loolu kese lañ lay lépp lu mu def droit moo moom da koy wax lépp lu ma droit may dama koy jël waxu météo rajo man du ma que kooku intéressé wu ma kooku day théâtre loolu muy def liggéeyam la day matt ndax su mattul du wax moom boo ko fayoon sa xaalis léegi mu waxal la li nga bëgg kooku man amul lu may wax ak moom dama focaliser wu ci ay waxam Ousmane Sonko dina bokk ak du bokk loolu bu droit taxawee rek Ousmane Sonko kenn mën nit mënu ko tere bokk ñi jàng nekk ñu nekk ay ay nit yu dëgg yëpp ne nañ Ousmane Sonko nit mënu ko teree bokk ci élection yi mais waxu juge yeeg ay waxu ñun juge yi sax man dañu ma intéressé parce que man Ousmane Sonko même bu ñu ko juge woon ne du bokk man dama gëm ne ah, ko génnee tamit yow koy atte suba dañ koy atte gannaaw suba loolu man intéressé wu man dama daan dem tribunal ci atte yeeg noonu yëpp mais talatuma parce que ci théâtre lañ nekk nekkuñ ci dëgg état bu état de droit dëkk bu normal am na yenn yoo xam ne sax dafa ñaaw ci nga koy def sa moroom sénégalais dafa ñaaw quoi parce que ñu ñëpp ay sénégalais lañu ak réew mi lu mu kon lépp lu ñuy def rek lépp looy teg sa morom rek xoolal bu nekkoon yow la quoi comprendre nga mais ay Ousmane Sonko day bokk ak du man loolu intéressé wu de man 2024 Ousmane Sonko lay xaar dama voter ko nekk si jàmm ay day bokk du bokk du commentaire loolu. mais nee nañ bokk ci liste électorale yi nga bokk. mais loolu yow toog sa kër rek naan Ousmane Sonko génne da gis benn juge bu génnee bu génnee bu génnee benn bu génnee benn atte ne Ousmane Sonko dañ ko génne ci liste yi gis nga ko yow yow journaliste gis nga ko moo wax loolu ministre moo génne Ousmane Sonko nekk ci liste yi ministre mooy justice mooy wala réew noonu lay doxee léegi benn nit génn rek ne lii mooy am loolu mooy am li réew noonu lay doxee non damaa nit ñi naan ne bokk ci liste war a wax leer naan nit yéen nit nga nga war a joxe waroo déglu ci benn nit yow lépp looy wax da nga war a ay kayit nga xam ne ngay am fooy sukkandiku mais nit yi bu ñu la wooyee ne la justifier sa wax bi foo koy foo koy teg nit yi laa ko déggee non mais El Hadji bu ko neexee mu delaat cour suprême mille fois ñun loolu intéressé wuñu maanaam ñun atte bi ñuy atte Ousmane Sonko ñun dañ leen bàyyi Ousmane Sonko tribunal bi ñoom nañ dem atte heure bu leen neexee Ousmane Sonko am na ay mat avocat Maître El Hadji Diouf li mu war a def rek lay def li la waxoon sànq laa mat moo ko ñor Maître El Hadji Diouf li ko ñor mooy mat lu soo ko joxee yow mi sax boo ko joxee lu mu la ñun li Maître El Hadji Diouf li muy wax intéressé wuñu na coow na mbel mbel yi def lu ko loolu intéressé wuñu yow daal yaakaar nga ne kii di Ousmane Sonko day bokk day bokk man fàtte naa loolu maanaam Ousmane loolu day bokk wala bu ñu nee Ousmane Sonko du bokk loolu fan la tegu yow lan ngay wax yow da nga gis benn justice bu àtte Ousmane Sonko Ousmane Sonko amul droit bokk ci élection yi gis nga ko yow. mais Cour suprême bi ñu ko war a yóbbu mais Cour suprême keroog bi ñu demee la la def wër wëndeelu wëndeelu wëndeelu wëndeelu 8 heures du matin ba 17 heures ba 18 heures mu wëndeelu wëndeelu nañ ko yóbbu tribunal ñu àtte ko. Mhm. tribunal bi àtte nga da ngay joxe Cour suprême loolu mooy lan loolu loolu ñoom yabuñu ñoom ñoom yabuñu Sénégalais de justice bi lañ yab justice ci boppam la état bi yab ñoom ñoo war a dëggal seen bopp affaire ñàkk fayda yi ñu leen def la ñu génn ci ba set ci wecc loolu la ñu war a def. dakkal affaire yi mu jeex. waaw mais nekk fi di tourner autour de poids amul sens quoi.